association des polypenal Sénégal ñoo ñoo ñoo ñëwoon di siyaare si sëñ bi di wax seen doléance si sëñ bi te seen doléance bi leen fi andi du leen na rek lu dul dafa dañu jëflante ak état ci wàll liggéey te président de la république signé woon décret pour dugal leen fonction publique ba dossier bi ma ngi ciy taaba taabalu ministère de l'éducation nationale seen kilifa yi nga xam ne dem nañ fi ñu war a dem yëpp jaar nañ fa waaye gisuñu saafara ci loolu yàlla dogal nag ñu jokkalante ak ñun ba yegg si fii ci Touba ndax dëkk bi da euh, Sénégal dafa am ay réalité yu fi am mooy kilif yi nga xam ne mooy wàllu adduna bi dafa am kilifa yoo xam ne kilifa yi diine yi la te képp koo xam ne nekk nga ci réew mi gis nga wàcc waaye wi nga xam ne sax Mouhamadoul Mountakha am na ko ci Sénégal kon képp koo xam ne am nga ay jafe-jafe rek yaakaar naa ci moom nga war a njëkk a jaar euh, feddali ko li nga xam ne mooy say jafe-jafe loolu nag moo andi woon ñoom mbootaay gi nga xam ni ci wàllu jàngale lañuy yëngatu ci case des tout-petits kon ñooñu nag bu ñëwee fii siyaare ji Cheikh Mamadou Mountakha ñu ànd si ak ñoom yaakaar naa sunu xel dana dal gis nañ sëriñ bi wax nañ ko suñuy doléances yi nga xam ni moo yitte mooy it taxawaayu mbooloo mi wax koy leen taxoon a jug lépp sëñ bi jot na ci kon nag li ñu war ñun mooy yeggale message bi nga xam ne autorité war nañ ko dégg mooy ndax bu fekkee ne da nga yor sa doom doomi réew ñu am ay jafe-jafe nga liggéeyloo leen ba li ñu war lépp ñu def ko ba jël seeni i dossier téye ko yaakaar naa loolu état bi war na jël ay responsabilité am ci ndaw ñi nga ndax mbooloo mi mat nañ huit cent personnes loolu duy caaxaan kon loolu bu fekkee ne état bi dafa taxaw di neefal ci loo xam ni wax dëgg yàlla rafet wuñ ko say doom yoo xam ne dañoo euh, am ñu bootu seen ginnaaw te lenn yitteelu lu réew mi kon nag état bi ñoo ngi koy ñaan ñoo ngi koy ñaan état Sénégal mu jël responsabilité am ci ndax ñi nga xam ni wax dëgg yàlla moo leen def li na ci ñoom ba egsi fii ba ñu war leen intégré ci fonction publique kon li gën a gaaw li ñuy sàkku ci moom ci ginnaaw bi ñu génnee ci Serigne Mouhamadou Mountakha ba noppi li ñu sàkku ci état Sénégal mu fexe ba seen jàngoro mu fajal leen ko. nombre bi 800 personnes de national bi yëpp moo national bi yëpp loolu xam nga mbooloo la moo xam ne wax dëgg yàlla. état Sénégal war na ko jël à sérieux ba seen jàngo yi nga xam ne ñoo ngi koy ñaxtu ay at boobu ba tey te sottiwut te wax dëgg yàlla ci ñoom rek la tagee kon waaw kon monsieur le ministre Cheikh Omar Anne ñoo ngi sàkku ci yow sa ñii sa njaboot lañu ñii say doom lañu ñii say jarbaat lañu ñii say soxna lañu te wax dëgg yàlla yaakaaru yàlla suñu borom dogal na ñu dénk la li nga xam ne moo ndomba tànk nga xam ne moo moom mooy seen ministère kon sa njaboot tey ñoo ñëw fii ci Cheikh Mamadou Mountakha sa njaboot tey ñoo ñëwaat sàkku ci yow li nga xam ne digaale woon nga ak ñoom ci ci ndigalul euh, président de la république ñu fexe ba njaboot gi nga gestu leen te bàyyi leen xel te seen jàngoro yi nga fajal leen ko ci ci kanamu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndax bind nañ mémorandum pour jox ko ko yaakaar naa bu ko liiree mboolem ñax li ci war a nekk lépp ma nga kon la yaakaar naa kon loolu ci sëñ bi ci sëñ bi gannaaw ay taalibe lañ dañuy yëkkati rek jox ko sëriñ bi moom la ca war a dox moom dana ko dox ñu ne li nga xam ne mooy sunu warteef mooy fexe ba ñi nga xam dañoo am lu leen metti ñu yeggale leen ci sëriñ bi ba sëriñ bi jox jot seen message kon message bi nga xam ne ñun moom lañ bëgg a yeggale ci autorité yi ñu xam ne li leen fi andi woon du li lekk lan seen njaboot lañ tëbu ñu leen nag waaye dañoo am kilifa te Cheikh Mamadou Mountakha mooy sunu kilifa kon su suñu ñëwee ci ñoom rek wax dëgg yàlla bëgg seen aajo faju rek moo leen taxoon a jug kon daal ñoo ngi sa di leen sant di gërëm di sant tasxuru xibaar yi yëpp di message bi daal ñu bëgg ñu jàll leen ko ci autorité yi ci ginnaaw bi ñu génne ci Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wér. mi ngi tudd Mor Sarr représenté animateur poliwala yi di Sénégal yëpp di waxee ci seen tur nag ñun dañu ñëwoon siyaare sëñ Muntaxa di ko wax méttit di ko siyaare te di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te may ko wér. di ko wax méttit bi nga xam ne nguuru Sénégal teg nañu ko te di yaakaar ne bu ci jotee suñu aajo dana faju ñun ci animateur poliwala yi ci Sénégal ci lañu bokk jiite ko itam nag. depuis 2017 président Macky Sall dafa jël dogal ne animateur polyvalent yi nekk ci case des tout-petits nañu defar seen plan de carrière léegi 2017 booba jëwrin ji fi nekkoon mooy Serigne Mbaye Thiam Serigne Mbaye Thiam jël ci lu am solo formé leen ñuy intégré fonction publique ba Serigne Mbaye Thiam demee Mamadou Talla ñëw Mamadou taala bi mu ñëwee jël ci 1031 formé leen ñuy intégré fonction publique léegi bii mooy troisième cohorte bi ñun ñu daje ak Cheikh Cheikh Oumar Anne Cheikh Oumar Anne itam ni kuy def liggéey bi jël ci ñun 800 personnes 800 yooyu bi mu leen jëlee ba pare ne dem leen ngeen inscrire ñun ñëpp dañu inscrire ci fii kenn ku nekk dañ la da nga inscrire ñu fay 2500 ñii ñu yóbbu leen Kaolack ñii ñu yóbbu leen Thiès ñii ñu yóbbu leen Rufisque ñii ñu ci des ñu yóbbu leen Saint-Louis mais depuis ñu inscrire ba léegi Cheikh Oumar Anne dafa wax ne dafa bloqué formation bi formation bi ñu ko bloqué dañu toog ñu ne formation bi dina commencé la onze juillet juillet la 11 bi ñu ñëwee ñu ne nañ ko ba le 17 le 17 bi ñu ñëwee ñu dàq nañ ko ba août. ba suñ jënd yàlla te formation bi commencé te ñun xamuñu lan moo bloqué formation bi fii ñu toll nii bind nañ Cheikh Oumar Anne di ko laaj lan mooy problème bi mais amaguñu tontum bind nañ premier ministre amaguñu tontum bind nañ ministère de la femme ñoom nag seen service ñu ngi commencé dañuy déggante ak ñoom mais ñu ngi commencé di ci waxtaan ak ñun agence nationale des cases des tout-petits moom ak ministère de l'éducation ñu seq liggéey bi agence nag li ko ci war def na ko moom mooy uti fonds yi jox ko ministre bi ñu formé agence def na loolu li ko tagal lépp ci bi la kon ñu ngi ñaan Cheikh Omar Anne di ko wax na ko suñ formation bii nañu ko defal te na mu gën a gaawee après ñu mën a intégrer fonction publique bu dul loolu mu jox ñu OS yi ñu dem intégrer directement fonction publique parce que bu fekkoon ne formation bi li ñu fay jëlee mooy diplôme professionnel ñu bëri ci ñun am nañ seen diplôme kon laajatul formation loolu moo tax tey ñi xëy ñëw seeti sëriñ bi Cheikh Omar Anne ministre bii nii ba mu fi nekkee ba léegi nii ñun ak moom amuñu woon benn ki benn xarma yàlla suñu seen suñu diggante ak Cheikh Oumar Anne amu ci kon liñ koy ñaan mooy li nga na delloo si xelam xam ne dafa am ñu ko jiitu ci liggéey bi te nañ daan doxalee na ko doxalee ak ñun loolu rek lañ koy ñaan